bu démb bee ci raw te xam naa ni buy gën di ñëw muy gën a neex te incha allah yàlla nañ koy ànd ak moom di ko ànd ak moom di ko ànd moom ba ca kanam a kanam hmm. ñu dellu ci bu baax ci yàlla. bëggante suñu biir. Hmm. bokk lépp di hmm. wax lu rafet yenente lu rafet. dëgg la loolu la ñu war a def mais c'est pas question dañuy daw feebar bi. dañu war a gën a xalaataat suñu borom defaraat suñu ay. dégg naa benn waaye mu ni mbas mi euh, kenn bugg ko waaye am na lu lu lu positif lu mu fi andi. mooy nit ñi gën nañu delloo seen xel ci yàlla. gën nañu solidaire gën nañu bëggante gën nañu jàppalante te loolu ci mbas mi nga nga nga nga te Mouhamed boo xoolee li xew Touba sax mm-hmm. tu vois que nit yi ñu feebar bi mm-hmm. dawuñu ko de au contraire dañuy dañuy dajaloo xool nuñ ko fi jëlee voilà li gëm-gëm dëgg la dañu gëm ne dañuy génn fii dee mm-hmm. moom par force day am nekk la ñuy dee loolu la ñu xamul chaque jour ñu découvrir ku nekk nan lay génnee fii mais loolu dafa war rek ñu delloo si suñu xel ci yàlla di di delluwaat bu baax sax allah. day wàññeeku day wàññeeku. incha na baax rek suñu jëf su baaxee rek ñu bëggante yenente nangu tey na fi yéeg fi mm. ñi jàppale ko. dëgg ku ci nekk moom moo ñu jàppale jàppale suñu directeur. Mm. incha allah léppay baax feebar bi day dañ. incha allah allo jàppalante. waa kii du taasalaan. <laughs> taasalaan nu ma la nii. mbaa ci jàmm. c'est que dama lay bañ a def haut-parleur na fi jiyee nii tax xam naa sañ nga koo wax loo xam ni <laughs> du ko neex daal maa ngi nii de. ma yàq nag. dëgg la xaama def la haut-parleur daa salaan. yàlla na leen yàlla fal cat. amiin may la gudd fan. amiin amiin sama yaay. bu njaboot. amiin. macha allah da nga sama doom ji bi nga jàppee